SNAPS bu Thiès 2013 2014 ba 2000 ba 2017 mën nañu wax ni euh, jaar na tamit ci beneen club bu nekk Ligue 2 Saloum Saloum xam nga mais temps yooyu xale la bi mu jógee foofu daaw saison daaw 2018 laa ko mën a wax. daawaati géeg sax la ñuy wax jaar na fii amitié bu Thiès ba jamono bi nag mu ngi jamono bu Kaolack kooku mooy kan Maguette Fall nag si vidéo bi léegi naa leen expliqué lu tax naan talent la nekk na joueur bu xamante ne ñaari poste lay jouer mën si nag pied fort am droite la mais nekk na joueur bu xamante ne c'est franchement créateur capacité de mu am c'est extraordinaire boo déglu ay famille am boo defee benn investigation ci famille am ak ñi ko côtoyé dinañ la wax ne franchement talent la te bu ñu dem leneen lu xamante booy bi waroon na am sélection waxtu amoon na benn présélection boo xamante ni côté waroon na ko yóbbu ci équipe bi malheureusement comme ni ngeen ko gisee monde jeune yi moom c' est c' est très difficile mais sa président foog mu def ay jéego côté mën na xool ñëpp parce que jeune yi nekk Sénégal ñëpp côté mën na mën leen xam dañ koy suggérer rek parce que muy man muy keneen ak keneen ñu gisee jeune talent dañ koy suggérer côté wala Dabo parce que mënoo xam jeune yëpp. maintenant nag booy bi découragé benn yoon équipe am franchement nekk na joueur boo xamante dañ koy yaakaar que ça soit mu jugee si banc bi que ça soit mu titulaire franchement capacité élimination bi mu am man gis naa ne bu demee Europe pourquoi pas mën na am club normalement sax. Euh, corona bi moo ko yàqal comme ay sénégalais yu bëri wala comme képp activité boo gis ci Sénégal wala ci monde bi corona yàqal na la dara booy bi nag Maguette Fall waroon na voyage malheureusement nag euh, corona bi moo tax voyage mais vidéo bi de boo leen gisee ma ma andi ko loolu moom parce que moom katuwaay na ay Ousseynou baax xam na ko bu baax a baax euh, defandoo na test ak Krépin Diatta bi ñu koy jël moom mu doon def test pour vous dire que c'est jeune bu xamante ne

européen yi li ñu fi jël ay joueurs kenn xamul mu toll bëri na ay joueurs yoo xamante ne jamono bi ñoo ngi bitim réew mu nekk lu xamante ne mbégte la suñu football ça veut dire que suñu football am na ay talent fii am na ay Sadio Mané yoo xamante ne lenn rek la ñuy xaar ñu mel ni Maguette Fall nii boo côtoyé euh, seen famille nga côtoyé ñi leen di entre nga ak ñi xamante ne xam nañ ko bu baax a baax dinañ la wax ne kii bu demee Europe ñu jàppale ko ñu xam euh, tubaab bi teg si seen loxo dañ koy formé waat parce que gis ngeen suñu joueurs yi ngeen gis nii yëpp ñu naan dañoo am talent kenn ñëw rek boo ñëwee Europe ñu ñëw rek teg la équipe A ñëwee dañ lay tàggataat joxat def jox la beneen formation parce que suñu formation ak formation fële ci Europe du doon benn donc man gëm naa ne boo yu mel nii am nañu talent te incha allah bu neexee yàlla dinañ dinañ ko defal benn interview bu xamante ne lépp pour que mu gën a am visibilité wax ak moom posé ko ay questions parce que mu ko posé ay questions moom bu raconté euh, parcours am si lay dàqa et je pense que incha allah dinaa ko dugal suuf seen football TV donc mbokk yi ci commentaire wax leen ma seen xalaat ak seen gis-gis ak noo leen gisee suñu football local en commentaire wax leen ma ko dinañ wax dem ngeen dem suñu compte Instagram seen football TV officiel di abonné bu baax baax di abonné fii ci YouTube di cliquer ci cloche boobu ngeen video gis vidéo bu ñëw ngeen mën ko seetaan jërëjëf ba benn sur TV bye bye